allahu rabbul alamin laay tàmbale mën mët julli ci xayril alamin tey tagg ngeen ji ilimaan danaa fi junj ay mbiram lu néew lu tóor lu ma ci xam xawma azakaay azakaam yàlla xamoon rek lu mu doon danaa la wax fonk sunnaam li tax doon ngeen ji imaam ak nii jëmmam niroog ju daam ak ni meloon ci alxuraan danaa la wax ci ay tukkeem danaa la wax ci ajam danaa la wax yit kóllëreem danaa la wax subaam ba ngoon Cheikh Abdou Khader sang bi laa bëgg a way man dongo bi ndax xaaju kaw bu jëkk be daa am lu tuut lu dukkul woon ku mas mi jàkk rakki moom sag jaax la jeex seex jiili moom ku mas di tàllal ay loxoom dootu jógaat di sàkku ñaan ku toog fi moom sa xel ma dal ngir ñëpp daal lay bàyyi xel day daa di féexal yow sa xol laaj la balaaj la say cosaan kooku diwa moo ana diw nga daa di jaaxle naa ko diw mu daal di lay gàgganti yow leer la nag loo xamul woon xam nga li tax mu doon imaam dafa bëggoon xayril anaam sëñ bi ko fal xayrul imaam danaa la wax nag kañ la doon bis bam ganee addina moom fële naa daarul alim moom la wala fii woowe ndaam Cheikh Abdourahman ma ngi fa woon muy ñetti fan ciw tam xarit sëriñ bu mag bii na bëreet ñu nañ ma wool sama xarit am naa fi gan gu doy kiimaan nañu ma wool Cerno mu ñëw ma wax ko lool ma sula xew fenn fudul fii Cerno ñëw lii la ko yónni daa ñaan danaa la yónni nga tudd gan gi yoon wi na gudd ngir loo dajeel duñ ko tudd yamal xiyaam du safaan ku gane addinay rammu waxtu màggee di rammu ñu xam ne gaynde daa yemu ba muy dikkit la seddu woon bismillahi arrahmani irrahim alhamdulillahi waxda wasalaatu wasalaamu ala man laa nabiya baxda rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul xuqdatam min lisaani yafqahu xawli maa ngi tàmbale samay kàddu ci turu sama boroom di wax bismillahi rahmaani rahim di sant sunu boroom cantuk xool ak cantuk làmmiñ waaye di julli di sëlmal ci Moustapha sallallahu taala alayhi wa moom mi nga xam ne fépp fu mbooloo toog ba jóge fa te julli wuñ ci moom jotaayam boobee pertaanga lay nekk ëllëg donte dugg nañ àjjana ginnaaw loolu ñuy nuyu mboolem mbokk yu ñuy seetaan ak fu nu mën a nekk nuyub lislaam te mooy asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu nu am mbégte nag mbokk yi dellusiwaat ak yéen ci al azhar touba point ci war waxtaane kenn ci doomi sëñ Tuubaa yi waree waxtaane kenn ci kilifay lislaam yi war a waxtaane kenn koo xam ni àddina du ko fàtte war a waxtaane koo xam ni àddina du doyal ci waxtaane ko moom ndax waxtaane ko mooy waxtaane makaarimul axlaax mooy waxtaane istixaama mooy waxtaane ak njub ak ku baax ak sell ak ëmbal jullit ñëpp aw yiw te kooku mooy a cheikh abdul xadir di ñeenteelu xalifa cheikhul xadim tey loolu am solo la ndax wax nañ ne fa ñuy fàttalikoo koo waaju baax yërmaane suñu borom dafay wàcc waaye it wax nañ ne képp koo xam ne taarixal nga ab waliyu dangaa mel ne dundal nga ko dekkal nga ko kon Cheikh Abdou Khadir la ñu war waxtaane tey muy kenn ci doomi Sëñ Tuubaa te waxoon nañ ne doomi Sëñ Tuubaa yi képp koo ci daja rek da ngay yaakaar ne moom moo ci gën kon koo ci waxtaan rek da nga yaakaar ne mooma la ko waral nag dañoo bokk ñum ñëpp benn jikko doomi Sëñ Tuubaa yi mooy ñi nga xam ne kenn ku ne ci ñoom Sëñ Tuubaa def na ci moom ren ba déwén Sëñ Tuubaa nee na kuleen fi dégg lu ay mbiram benn saalaa def sama doom jee nag def naa ci moom ren ba déwén doomi Sëñ Tuubaa ñooy ñi nga xam ne sun boroom mi dund te du faatu moo leen di yar kon kenn ci ñoom lañu ñu war a waxtaanee muy Cheikh Abdou Khadir moom nag. doy na ci moom ñu ne cheikhul xadim mooy waajur wu góor cheikhul xadim mi nga xam ne xat ni xam ne taarif waaye néeg ndeyam soxna bu Bousso moo ko jur soxna bu sa di doomi sëriñ Bousso bi sëriñ Bousso bi ak maam jaara ñoo bokk ndey ak baay sëriñ Bousso bi moom rek euh, doomam mbir da caa nekk sëriñ Bousso bi lu jiitu muy samp kër dafa ñaanoon sunu boroom doom jum am góor ak jigéen na nekk waliyu ba suñ borom nangu ak ñaanam mu soo ko samp kër nga xam ne sax xaw naa yeex a samp kër ngir doon xaar ñaan gu nangu ko nga xam ne boo dee xool sëriñ bu soobee doom yu góor yëpp ay waliw lañ waaye doom yu jigéen yi ay waliw lañ waaye boole nañ ci jur ay waliw ku mel ne soxna Aminata Bousso ku mel ne soxna Awa Bousso bi nga xam ne mooy waajuru sëriñ Fàllu ku mel ne waajuru sëñ Xaas mu ngi neew ku mel ne waajuru sëñ Cerno Bousso mu ngi neew ku mel ne waajuru sëriñ Baara Ñang mu gede nga xam ne doomam yu jigéen ñëpp jur nañ ay waliyu kaamil waaye soxna Aminta Bousso nag mi jur sëñ Abdou Khadir moom itam néeg ndeyam dafa delluwaat ci maamaaram ndax kànni Aysa ko jur kànni Aysa Morje Morje Ibrahima Awañang Ibrahima Awañang maamaaram moom nag sëñ Abdou Khadir mi ngi gane fii ndaam waajur wu jigéenam foofa la nekkoon keroog ba mu ganee àddina di ñetti fan ci aw xarit di bis bii ñu koy màggal boo demee ci Irwaawun Dim danga nga fekk Cheikh Mouhamed Diop Dagana di wax ne Serigne Abdou Khadir mi ngi gane àddina muharramu jalsasin bi gàddaay bi amee junni at ak ñett ñett ci la gane àddina ci njaareem nee na sax guddik ajjuma la gane àddina moom Serigne loolu mi ngi ci Irwaawun Nadim bi mu gane àddina nag ba Serigne Touba yeban maam Thierno mu di ko tudd si. ci la ko waxe woon waxam ju siw ja nga xam ne ñëpp dégg nañ ko yàgg nañu ko wax mooy nanga guddal sa yoon fii ak ngay dem ba delsi koo fi dajale suñ borom jégal nañ ko wax nañu maam Thierno itam ci bëggal nit ñëpp aw yiw tax na yoon woowu guddal na ko lool sax ngir bëgg loola kon ñu xam ne kon borom yi jagle la gane àddina rek ka lay tuddi ñu defal la ñu defal ko fii muy dem ba mu delsi comme fi dajal ñu jégal la kon kooku xam nañ ne borom mbir la yaayam waa juram soxna Aminata sax kon wax naa ne ndaam dañu woon ndax ndaam bari na ci waa kër sëñ bi waa barsàq yi ñu fa féete woon bari na ci ñoo xam ne sax sëriñ Daam Abdourahman doon leen jàngal alxuraan ak xam-xam kon sëñ Abdou Khadir it foofa la dalee jàng alxuraan foofee la jàngi alxuraan ginnaaw ga nekk na gede gede bu sa jàng na fa aslëf ci xam-xam nga xam ne sax ba muy nekk gede sëñ Abdou Lahad am na lu mu seere woon ci moom nee na sëñ Abdou Xaadir ba muy nekk gade di jàng rek saa yu waxtu julli yi masaana jot xel ñëpp xel yëpp dafay dem ci na sëñ Abdou Xaadir jiite nga xam ne kon booba dalay tegtale kon sàmm nga ragal yàlla ga maanu ga ak jub ga nga xam ne loolu yëpp dafa teel a feeñ ci ñoom ci moom ba nit ñi bàyyi ko xel ba Cheikh Abdou Lahad wax ci moom loolu kon jàng na alxuraan jàng na xam-xam ba war a xam li ñu xam yëpp ginnaaw loolu nag la sax ci jëfe xam-xamam kon kii moo di Cheikh Abdoul Khadir nga xam ne euh, ba bi Cheikh Abdoul Ahad nekkee xalifa ci 1968 la téye xilaafa gi moom jël imaama gi jox ko Cheikh Abdoul Khadir muy jiite jumaay Tuubaa nga xam ne def na ko lu mat ñaar fukki at ak ñett wala ñaar fukki at ñaar yoo xam ne wax nañ ne bi mu euh, demee màkk rek la mosa ñàkk la masa absenté bañ a jullisi te boobu dem màkk ga moo ko waraloon kon imaam ju maanu la woon moom itam ju ragal yàlla nga xam ne féetewoo lépp lu yor lu jëm ci diine rek bi sëyam laa nekkee lépp lu jëm ci diine rek moo ko féete woon mu yar feeñ tudd doom yi jullee kilifa yi faatu ak lenn ci taalib yi waaye it doonoon ku ràññeeku koo xam ne léppam istixaama la woon waaye it koo xam ne euh, ku amoon relation wala bu ratax bu neex ak ñi mu bokkal Serigne Touba ak seexi Serigne Touba yi la ko tàmbalee sëñ Moustapha ba ci sëñ Mourtala kenn ku ci ne am naa ak yow relation bu rafet daan dem ci yow ngay ñëw ci moom. sëriñ Mounou Moussa diggante moom ku ne xam na ko diggante moom ak sëñ Fàllu nga xam ne ñoo bokk euh, ndey ndax seen ñaari ndey ya bokk baay diggante bu ratax boobu it ku ne xamoon na ko diggante mag euh, sëriñ Basiru moom itam ku ne xam na ko mu nga xam ne sax am caatam sëriñ Basiru la ko tuddee loolu day faat day wane relation bu neex bu dëgër bu am seen diggante digganteem mag sëñ Baara moom itam kenn ko na xam ne moo ko sëñ Baara ay xar lañu woon ba fi sëñ Baara jógee eh, relation boobu mu continuer ko ci ay doomi sëñ Baara diggante sëñ Abdou Baara ak moom diggante sëñ xaari aw ba ku ne xamoon na ko te loolu kóllëre gi doxoon diggante ma sëñ Baara rek la doon sàmm waaye diggante mag eh, sëñ Abdoulahi Borom Ndër moom itam dañ ci nettali yu bare bare diggante mag sëñ Ibrahima noonu ba ci diggante mag Cheikh Abdou nga xam ne dañoo yàgg xaritoo booba eh, ñoom ñaar ñëpp ay tuutànk lañ nga xam ne seen relation lu yàgg-yàgg la nga xam ne li ma wax léegi li si iblaat seere ci moom ne ba muy nekk tout tànk rek nekk gedee ci jàng bu waxtu julli ma saana dem ñëpp xel yëpp lay dem ci Cheikh Abdou Khadir war a jiite ci jamono jooju nga xam ne boobu Sëñ Abdou Lahad xalifa la ko Sëñ Abdou Lahad wóolu woon soppoon ko ba sàkk woon ci moom mu nekk seereem ëllëg ca kanam Sëñ Tuubaa ne moom Sëñ Abdou Lahad taalibe Sëriñ Tuubaa la ba Sëñ Abdou Xaadir ko lool nga xam ne daanañ demante sëñ Abdou Khadir daane ko gane ji sëñ Abdou Lahad daane ko euh, gane ji xoolal euh, sëñ Abdou Lahad li mu wax nee na melaw sëñ Abdou Khadir boo ko bëggee xam rek da ngay jàng bopp surat anfaal innamal mu'minuuna allaziina izaa zukira llaahu wajilat quluubuhum wa izaa tuliyat alayhim aayaatuhu zaadathum iimaanan wa alaa rabbihim yatawakkaluuna allaziina yuqiimuuna salaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquuna ulaa'ika humul mu'minuuna haqqan lahum darajaatun inda rabbihim wa magfiratun wa rizqun kariimun sëñ bi la ne melo yooyu suñ borom di ta di wax ci alxuraan di wax ne ña meloo melo yooyu ñooy way gëm yàlla yi dëgg-dëgg sëñ bi la nee na melo yooyu mooy melo sëñ bi xaadir kon la mu ko bëgg a seeral rek mooy way ku gëm yàlla xaqan la jullit xaqan la waaye it ku wéeri woon ci boroom la nga xam ne fu mu déggee eh, ñu jàng alxuraan fu mu eh, déggee ñu jàng alxuraan rek mu tiit xelam delluwaat ci boroom fu ñu fekkee ñu jàng alxuraan wala ñuy waxtaane kéemtaan suñu borom yi loolu da koy dolli gëm yàlla waaye ku la woon ci borom la ku fonkoon waxtu julli la koy it ku daan dépensé alalam ci julli ñi kenn ku ne xam ne sëñ Abdou Xaadir ba mu fi nekk ku ma sa am ordonnance sa xel ci moom nawe ku ma sa am am tudd am ngénte sa xel ci moom dem kon loolu moo tax xam yun fi xoone loolu la ko sëñ Abdou Xaadir seedeel euh, maa ngi euh, yor loo xam ne mbindum sëñ la mbindum loxoom la booba sëñ Abdou Xaadir da koo gane si ci këram gi ci euh, fi ñuy wax daaru xilaafati mooy bi mu nekkee xalifa moom sëñ laata kër gi defoon sëñ Abdou Xaadir bi mu ko ganesee ba waxtu julli jot sëñ Abdou Xaadir jiitu julli mboolem ba àggal sëñ Abdou Xaadir ba mu sëlmalee dafa wax ne julli gi képp julli gi képp ku ko teewoon sun borom jégal na la ci la bindee sax lu mu bind yónnee ko sëñ Suhaybu ndax loolu daanu ko def mooy wa annal kaatibu atlubu min allahi taala baxda ma fawattu amri ilayhi hasa wa jalla wa ila rasulihi salawatullahi wa alayhi wa ila xadimihi alayhi ridwanullahi taala baaxal xadim li man waqafa huna al fi tuuba al mahrusati an yuhaqiqa rajaahu wa rajaa man rajaahu wa an yahaba lahu saadatan laa shaqaawata baxda abadan bi faddihi wa rahmatihi wallaahu yuxtasu yaxtasu man bi rahmati man yasaaw wallaahu sul fadlin azim wallaahu ala ma naqul wakil bi xatti yaddi xubayt rabbihi wa ibnu cheikhi Abdul Ahad Mbàkke fii Touba nga xam ne booba sëñ Abdou Xaadir da koo gane si woon ci këram nga ci la defoon lii waaye it digganteem ak sëñ Saaliw it noonu la woon diggante bu ratax diggante bu neex maa ngi fàttaliku 86 87 ngan goo xam ne sëñ Abdou Khadir gan ñëwoon na ko sëñ Saliou ci Kott loolu maa ngi koy fàttaliku nga xam ne keroog sëñ Abdou Khadir daa xëy ñëw yenn si gan si ko ba ñëwee ba ci takkusaan sëñ Abdou Lahat ñëw moom itam yenn si fa ñu bokk fa fanaan ñoom ñett kon loolu yëpp dafay tegtale seen relation bu neex seen relation bu dëgër euh, sëñ euh, Saaliw ki topp ci am caatam moom itam sëñ Abdou Xaadir la ko tuddee loolu yëpp kon dafay tegtale seen diggante bu tax seen diggante bu neex naka noonu diggante ak sëñ Sohaybu noonu la meloon gis nga ak njabootam li ci ëpp moom sëñ so moom sëñ Abdou Xaadir sëñ Sohaybu da leen jox moo leen jàng alxuraan moo leen yar diggante moo sëñ Murtalaa tamit noonu rek la woon diggante bu neex diggante bu ratax kon sëñ Abdou Xaadir mu ngi noonu li ko li waroon diggante mook suñu borom def na ko mat sëkk mooy gëm ko gëm gu mat sëkk la ko suñ borom digal mu di ko def waaye it boole ci lu ci moom euh, doyloo ko waaye it ëmbal euh, aw yiw mboolem jullit ñi ak fu ma nekk waaye mbokk gi mu rattaxal ko euh, def def ko dëgëral ko bu baax a baax ci sàmm ko ci aar ko ci wóolante soppante bëggante waaye it noonu la bëggaloon mboolem jullit ñëpp aw yiw xoolal euh, ni keroog ba mu génne àddina ba mu ko yëgee dafa wax ci ci jumaa ji ba ñu julli pare mu ne dafa am mbokkum jullit mu faatu nañ ko jàngal Lixlaas daal di jox aw dog ñaan ko ko kon loolu dafay teg ne moom mbirum jullit ñi moo ko ñoroon da yonent wax ne man lam yaxtam bi amril bi amril muslimina falaysa minhum ku yittewul mbirum jullit ñi bokkoo ci ñoom moom dafa woon mbirum jullit ñi daana sax déglu tàgge ngir lan ñaanal way dawal yam fa dégg mën leen a ñaanal moom amoon na aada yi moom sëñ Abdou Xaadir guddik euh, altine gu ne mu jàng ñeent fukki lixlaas yéene ko waajuró mu jigéen di soxna Aminata Bousso guddik ajjuma gu ne mu jàng ñeent fukki lixlaas yéene ko Cheikhul Xadim ak soxna Aminata sax ngir li addis bi wax ne ummu ko su ma ummu ka su ma abaaka kon nga nga xam dafay tegtale léppam sax ba ci ak ñaanam ba ci léppam sax da ciy taqoog sunna da ciy taqoog ñàngaleem yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam waaye li may nekk li ma ci gën a ñor nag mooy ëmbal gi mu ëmbal mboolem jur ñëpp aw yiw lee altine la ko daan lii guddi àjjuma waaye guddi gaaw a gune nag danaan jàng faatix benn yoon ayatu kursi ñetti yoon li xalaas fukki yoon ak benn lu mu cibloon mooy yool bi mu jox ko mboolem ñi faatu way dawle yi ci jullit ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi way gëm yàlla yu góor ñi ak ñu jigéen ñi nga xam da koy booleeg da koy matale ñëpp waaye nag am na tamit bi tax sii si lil loolu mooy tegtale kon euh, mbirum jullit ñi da ko yitte woon waaye mooy tegtale même ba ci jullit ji faatu sax da leen daan ñaanal bis bu euh, wut guddi gaaw gone ne mu di leen ñaanal kon loolu dafay tegtale ne moom sëñ Abdou Khadir mbirum jullit ñi ku ko lu ko yitte loon ataa sax bind na ab téere boo xam ne mën ko tuddee xirsul muslimina fi daxawaati wa taawudaati lil muxtarisina nga xam ne téere la boo xam ne da ko taalif ngir bëgg mboolem jul ñi xettali ko àddina ak alaxira mucc te jariñu tey ak ëllëg ba tax na fàggu na ci téere boobu mboolem lu mu lu jullit bi war a ñaan ak waxtu wu ma ko war a ñaane ak mbooleem lu mu war a fegu ak waxtu wu ma ko war a fegu tuddee ko téere wattandukaayu jullit ñi ci ay ñaan ak mosuwaay ñeel way wattanduku yi kon loolu dafay tegtale yittewoo gi yittewoo mbirum jullit ñi waaye nag doonoon ko am ak jagle ci Serigne tubaa ci nuru ko ci jëmm ci melo ci ay jëfin ba ci aw doxin sax sëriñ Touba wax ci moom lu bare bare tudd naa ci léegi rek la mu wax keroog ba mu gën a àddina ne maam Thierno fii nga koy tudd di ñëw koo fi dajal ñu jégal la moo taxoon daanañoo xam ne sëñ Abdou Khadir kum jiite julli nga taxe kum jullee tamit sunu borom jégal la kon waaye it ku amoon ak jagle la gis nga am na lu jafe-jafe ci anam mooy doomi Sëñ Tuubaa ju ne maqaama maxrifa billaahi lay gën lay gën ne lay gën a àddina ni ko Sëñ Tuubaa waxee fan xaarifan xaaliya martaba bi muy ñaan soxna soo xam ne day dafay am ay tout tànk yoo xam ne dañuy xam yàlla waaye di borom martaba yu kawe waaye ca Baxdaad am na fa néeg boo xam ni fa la nekkoon di jaamu yàlla di jaamu yàlla ba rasulullahi fekk ko fa ànd ak xulafaawul arbax yi jëx ren ci dul ay nelaw te boobu nekkagul xalifa loolu kon dafay tegte ne mooy itam ak jagle la euh, ku am ak jagle la woon waaye it waliyu kaamil la woon waaye euh, ku jekke woon Sëriñ Tuubaa la sëñ Xaadir xame woon nañ ko ci ku mas a feebar ba feebar bi jaaxal la sa xel dem ci moom te bu la ñaanalee nga wér waaye it ku daan jox juriñ ñi ay orientation la waaye ku daan xetli jullit ñi la ku fa mës a ñëw sàkk ñaan boo ko waxee loo xam ni ak bokkaale da caa ne mu denc ba set wecc boo jëwee ne ko damaa ami rab bëggoon ko ma ñaanal wala ma kii bëggoon ko ma ñaanal mu ne demal ci faj loolu wax sax benn anecdote nit ñëw na ci moom euh, feebar di sàkkook ñaan mu ne ko danaa la ñaanal waaye digal naa la nga dem seeti docteur yi ndax ñoom de suñu borom may na leen xam-xam te duñ la booleeg say mbokk xoolal kon na mu koy joxee ay orientation kon sam xel maanaam ku masaana jàq rek wala nga tiit wala nga am feebar bu la jaaxal rek sa xel dem na ci Abdou Xaadir yàlla mayoon ko ci nag ci loolu nga xam ne ay kimtaan ak i xar baax yu bare bari am na ci moom sëñ Abdou Xaadir jaamu yàlla bu ragal la woon bu daan laabire jullit ñi nga xam ne dafa dund ci àdduna set wecc ba loxo ragal yàlla dib sëriñ bu yare di xaayaan nekkoon wéeruwaay nekkoon xistu ñeel jullit ñëpp boroom xam boo xam ni ab sang la waaye nekkoon ku saxlan lay xat kaana saxlan lay naan ku nooy neex a ab sang bu ñëpp xam waaye sëriñ bu xam yàlla ku am xel waaye nag ku tabe wax naa la léegi ku ma sa am ordonnance sa xel dem ci moom ku ma am tudd sa dem ci moom waaye nekkoon nag mursid nga xam ne day laabiru jullit ñi di leen ori di leen jox ay orientation boo laajee ñëpp dañu wax ne sëñ Abdou Khadir ragal yàlla ak njub ak sax ci ak sax ci istixaama moo ne woon mbiram nga xam ne jihaad na ci yàlla ci jëmmam jihaad na ci yàlla ci xolam boole woon sariha ak xaqiqa doon nit ku jub waaye ku wegu boo ko gisee rek sopp ko boo jëfanteek moom naw ko wekk ko ne woon ku dudd àdduna doon aar sariya bi waaye doon aar tamit xaqiqa bi nekkoon jaamu ko te yàlla nga xam ne jaamu yàlla yi lu mu ci mosaan saxal loolu da koy saxal ba faw kenn ku ne xam ne Sëñ Abdou Khadir ak jullig yor-yor nga xam ne da ko saxaloon kon Sëñ Abdou Khadir daal yàlla nañ ko yàlla fayal daal maanaam kenn diine la woon. pukkar la woon ñeel xeetu sayyidina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam waaye pukkar la woon ab sag la woon ci tariqatul murid bi nga xam ne ku dëggal la woon borom wilaay la woon ku set ab dënn la woon ku dëddoon àddina eh, la woon waaye ku lewet ku xereñ mënoon a sàmm wóolal lu mu la mës a dikk dana ko def waaye ku sàmm wóolal la woon xoolal ni mu boole woon jaamu yàlla nga xam ne jaamu yàlla gu mat sëkk gu tar gu ñëpp xam waaye nag boole koog di wër réew mi fën fenn fu ne mu defa dem di fa gane nga xam ne kon moom boole woon na fexe woon na ba àq ji dox diggante borom motale ko waaye àq ji dox diggante mbokk yi ak jul ñi mu motale ko ñëwaane léeg-léeg nga gis koo xam ne bi yàlla waaye day toog këram nit ñi di ko fekk si dem fenn sëñ Abdou Khadre nag moom loolu doolu ko woon da daan jug di seeti yi di seeti taalibe yi waaye yoonu murid bëggutoon dara lu ko lu ko taq lu ko tilimal bëggutoon dara lu ko taqal sama papa mi mooy nettali mos naa ñëw këram bis boo xam ne dafa ñëw rek bi mu agsee dajanteeg yor-yor jot mu waaj julli yor-yor ndekkee ñi ngi teg foofu ab rajo buy teg ay jàng xasiida waaye nag ci biir jàng yi mooy jàng yi xew léegi nga xam ne dañuy jàng ba ci yàgg ñu tudd ay tur wala du ci dugal li ci bokk bokkul. sama waajur nee na ma bi mu sëlmale bi mu ne asalaamaaleykum ak bi mu naan fay rajo bi benn la. nga xam ne loolu mooy kon buggutoon dara lu ñu rax ci mbir mi te bokku ci kon. yàlla nañu ko yàlla fayal moom Cheikh Abdou Khadir Diané Cheikh Abdou Khadir moom Serigne Touba ak a bari lum leele ak a mënoon a taral gan ak a sàmmoon coloré ak dundal mbokk gi ci lu feeñ ak ci lu nëbbu ak tab la woon ku daan ñeewanteel julli ñi la woon ku laabir la woon waame la woon jaamakatu yàlla woon kon Serigne Abdou Khadir daal mi ngi noonu yàlla na ko yàlla fayal yàlla na nu yàlla taas euh, ci barkeem nit ku sell. ku ragal yàlla ku sax ci ak njub daan digal nit ñi ñu sax ci ak njub tayit newoon koo xam ni dafa ëmbaloon jullit mbooleem dafa ëmbaloon aw yiw mbooleem jullit ñi kon ay jikkoom ak ay meloom mi ngi noonu war nañ cee profité ñun ndaw ñi euh, roy ko ci xam ne ci ak njub ak ragal yàlla ak euh, sax ci loolu ci lañ mën a développé sunu àddina ci lañ mën a defaree suñu àllaaxira wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. kon nana roy cib sëriñam seex jiili moom lee di mbiram forab wane tëll mu jam te lamay nag benn yoon kër gu ne daa am les famin kër jiili julli lañ famin ak sunna xayrul alamin moo tax nu def ko ilimaan kër gu ne daa am les famin kër jiili julli lañ famin ak sunna xayrul alamin moo tax ñu def ko ilimaan